Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum lu Ousmane Sonko commence à daj ci politique rek daj na lu ko raw jour bi ñu naroon a jël bakkanam ndax politique mo nekkoon le 20 juin 1959 gamu gi nga xamantene Serigne Pape Malick Sy radiyallahu anhu moko organiser organisé ci dëkk bu sel bi ni di Tiwaawoon bi nga xamantene Serigne Cheikh Tidiane Sy ñew na ci gamu go biko commissaire bi ni di wuyoo ci turu Jibi Ndiaye gisee daf ne eh Serigne baa ne ci sasi rek ñu joxe ordonné fa manam dañu bëggone a jël bakkanam bala lay expliquer nak lan mo waral problème yi bañu tollu ci situation bi dañuy arrière tuuti ci ginnaaw ma wax la lan mo duggal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ci politique ak bi mu duggee ci politique nan la ko Serigne Babacar Sy gisee bu ñu arriéré tuuti bien sûr avant l'indépendance du Sénégal en 1960 wala sax ma gën a préciser Serigne Cheikh Tidiane Sy ci histoire du Sénégal moo nekk premier kilifa diine boo xamante ne soobu na ci mbirum politique rax ci doole aussi mu créé ab parti politique ngir partager idées yi nga xamante ne moo nekkoon ci moom bi nga xamante ne soobu na ci politique nag kilifa diine yi nga xamante ne ñoom la bokkaloon jamono mën naa ne ñu ëpp ci nga xamante ne moo nekkoon ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum à l'exception bien sûr de cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass moom nag comprendre na idée yi nga xamante ne moo nekkoon ci jëmm ji nga xamante ne moo moom la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daan jël jëmm ju tedd ji nii di cheikh Ibrahima Niass daan na ko ci jàppale yemul ci moom rek mais da nekk kilifa gi nga xamante moo ci gën a siiw bu ñu jëlee déclaration bi nga xamante ne cheikh Abdoulaye Dieye moo ko def ci weeru octobre ci atu 1995 dans monde islamique ba tey muy laajte ne nitu diine lan lay wut ci politique mais nag wax na ne bi nga xamante ne jeexal na éducation spirituelle bi nga xamante ne moom la doon def ci la comprendre Serigne Cheikh Tidiane Sy lan moo ko dugal ci politique ba tey ci jamono jooju ci la comprendre ne ñi nga xamante ne dañoo bokk ci tarixatu Tidiane yëpp dañ leen a interdit ñu toog beru ci seen ruq bu fekkee am nañ expérience xam-xam ak capacité ngir dimbale seen askan preuve bi nag mooy jëm ju tedd ji xamante ne moo di Serigne Abdou Aziz Dabakh li muy doon doon kilifa diine da ngeen ko doon gis heure bu dëkk bi tàngee dafay jóg far ci côté peuple bi wala sax bien sûr jëm ju tedd di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom aussi da doon remarqué position yu am solo yi nga xamante ne daf ko doon jël ci réew mi donc Cheikh Abdoulaye Dièye mi dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañoo amoon benn conscience ñi nga xamante ne ay homme religieux lañ maanaam nit diine yi fi nga xamante ne foofu lañ leen di xaar moo di ca daara ja ca jàkka ja di ñaan ak di def ay zikr mais nag bu fekkee langue politique bi seen yoon nekku ci ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum jóg na engagé wu ne dafay dugg ci politique dafa am ñaari miir yoo xamante ne moo nekkoon ci kanamam bi ci njëkk mooy kilifa diine yi nga xamante ne ñoo ko maggoon te ñoo nekkoon bien sûr ci réewu Sénégal nan mën a def ba comprendre loo leen nitu diine di def ci politique beneen branche bi nag bien sûr mooy homme politique yi nga xamante ne dañ nekkoon nekk ay kàngam mën naa ci cité xamante moo di Lamine Gueye ñoom ñëpp ñu bokkoon ci li ñuy tuddee union progressiste sénégalaise borom xam-xam yooyu borom kàngam yooyu nan la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al di def ba mën leen défier donc Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñaari mur yu mag ñoo nekk ci kanamam muy kilifa diine yi naka la mën a def ba convaincre leen ñi nga xamante aussi ñooy homme politique yi naka la mën a def ba am ci seen biir position boo xamante bu am doole lay doon ci jamono keroog bi nga xamante ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum taxaw na ne dafay dugg ci politique dafa dem ci waajuram bu tedd bii nii di Serigne Babacar Sy ngir ñaan ko ndigal c'est-à-dire mu ñaan ko mu jox ko li nga xamante ne moo di ijaas ngir mu mën a sóobu ci mbirum politique mais nag bi nga xamante ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dem na ci waajuram muy Serigne Babacar Sy mu ne ko dama bëgg a sóobu ci mbirum ci mbirum politique wax nañ ne Serigne Babacar Sy jox ko ndigal ci saa si mais nag dafa toog jamono bu yàgg soog di ko tontu bi nga xamante ne tontu na ko nag Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa laaj Serigne Babacar Sy ne ko lan moo tax boobu ba tey ma tàggu la ne la damay dugg ci politique tontu wuma nga bàyyi ba tey soog di ma jox ndigal ne ma mën nga cee dugg Serigne Babacar Sy lii la ko wax mooy def ko ne politique bokkut ak mbirum diine mu ne ko lan mooy différence bi mu ne ko bu fekkee mbirum diine benn baatu astaghfirullah rek mën naa réparer lu bëree bëri mais nag bu fekkee mbirum politique dafay laaj leneen lu gën a compliqué. donc jëm ju tedd jii nii di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum jot na ndigal ci waajuram bii nii di Serigne Babacar Sy dans ce cas là nag la voie est mën na dugg ci mbirum politique yow mi nga xamante ne da nga bëgg jënd kër wala nga am kër bëgg koo jaay wala sax nga bëgg a sa kër contactel agence immobilière diaspora sopp na bi ay jeunes lañ nekk jeune sénégalais di liggéey di ko teg ci xarañte ak jub ak kayit yoo xamante ni yu leer naññ la rax ci doolu aussi parcelles xamante ne moom la ñuy offrir dafa nekk parcelles yoo xamante ne nekk ci makkaan yu placé nekk parcelles yaatu lay doon kon nag yow nga xamante ne rawatina moodu moodu yi nga xamante ne dañ may suivre daw leen contacter ji agence bi dina leen

58 Serigne Cheikh Tidiane Sy nak meun nañu préciser encore une fois que ne idée yi nga xamante mo moo ci mom dafa wute won lool ak idée yi nga xamante mom la Léopold Sédar Senghor yoron ak ki nga xamante modi Mamadou Dia bu ñu ñëwee ci référendum bi nga xamante mo amon amoon ci réewu Sénégal ci atum 1958 jour le 17 septembre 1958 journal bi nii di quotidien Dakar Matin dafa publier ben déclaration bo xamante jëm ji nii di Serigne Cheikh Tidiane Sy moko Maktoum ci déclaration ba Serigne Cheikh Tidiane Sy Al fa doon wax naan taxaw na engagé wu ngir li nga xamante ne moo di élection yi cest à vote yi ñu jaaral ko ci yoon parce que loolu bokk na ci intérêt réewum bi nga xamante ne moo di réew Sénégal mu sàkk aussi ñu taxawal loo xamante ne dafay doon ab communauté franco-africaine mais nak daf ci préciser mbir yi nañ ko c'est-à-dire ñu téy lu ci nekk ñu càmbar ko nañ ko di engagé li nga référendum mais nak bi nous amé ñetti fan kessé lañ ci lups publier décision décision ba oui c'est-à-dire ñu voté oui le 28 septembre 1958 ñu amal référendum bi ñi nga voté oui gagné ñi nga xamante ne ñoo doon voté no mais nag ci jamono jooju ba tey mën nañoo préciser ne jëm ju tedd jénee di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci réewu Sénégal engagé wu ci politique ñi ëppoon ci ñoom amutoon ci ñoom confiance li nga xamantene moko waral ko waraloon nag colonisation bi nga xamantene ne bi yi nañu ko te ñi ëpp ci ñom tubaab bi daf leen wàll seeni jikko c'est-à-dire daf doon ragal ñi nga xamantene ñom la tubaab bi formé bu fi toogee au lieu que ñu liggéey ngir Sénégal mais ñu liggéey ngir tubaab bi loi cadre bi nga xamantene ne moy changer statut outre-mer yi nga xamantene voté nañ ko ci réewu France le 23 juin atum 1956 influence changement bobu nak bokku na ci li waral constitution bu bes bi nga xamantene ne xaatimoon nañ ko ci rew Sénégal dans ce cas là nak wax nañ ne li nga xamantene modi fédération Mali bien sûr da fay nek lo xamantene lu nécessaire lay doon mais nak bi nga xamantene Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum consulté na projet de constitution bi nga xamantene mom lañ na a jëmmal ci rew Sénégal dafa gissone ne projet de constitution bi dafa nek lo xamante ne dafay menacer diine d'islam ci réew Sénégal lool nak mo waral mu dem ci le conseil supérieur des chefs religieux mo wax leen danger yi nga xamante mo nek ci biir constitution bi raf ci doli aussi yeneen kilifa diine yi nga xamante nekkon nañ te jamono ci réew Sénégal mu dem ci ñom wax leen danger yi nga xamante mo nek ci biir constitution bi bien sûr muy menacer li nga xamante modi moo di diine l'islam ci jamono jojju nak Serigne Cheikh Tidiane ci amoon position ferme ngir constitution bi nga xamante mom lañ nar voter ñu génn ci wi ci wala point yi nga xamante da fay toucher

constitution bi mujj nañ ko voter mujj nañ ko aussi appliquer wax nañ ne constitution bi ñu ngi ko commencé doxal le 22 japp le 24 janvier atum 1959 ci jamono jooju nak ki nga xamante mo moo nekkoon ministre de l'intérieur intérieur mu doon wuyu ci turu Valdiodio Ndiaye gisoon na problème de légitimité yi nga xamante mo moo nekkoon ci biir constitution bi lolu mo waral mu wax Sénégal yi ne len mën ngeen baye ba benen élection législative di ñëwaat bu ko défé ngeen sanctionner négativement wala positivement gouvernement bi bi nga xamante nak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum amul ndam ci xex bi nga xamante mom la doon xex ci constitution bobu non rax ju doolu aussi mu remarqué ne li nga xamante mo moo conseil supérieur des chefs religieux efficacité bi nga xamante mom la wara am amuko ci la décidé nag ne fay créer un parti politique. partem ba nak mi ngi doon wuyoo ci turu PSS c'est-à-dire parti de la solidarité sénégalaise mu décider wat aussi and ak partem bobu ci élection yi nga xamante mo amone le 22 mars ci atum 1900. 59 mais nak waxna len ko sank bien sûr adversaire politique yi nga xamantene mom la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum jàkkaarloo woon dañu nekkoon ay kangam parce que amna ci ño xamantene sax dañ doon dem ci nitu diine yi nga xamantene ñoo nekkoon ci réewu Sénégal bien sûr ci jamono jooju di jéem a influencer jëm ji nga xamante ne moo di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ci élection législative yooyu nag wax nañ ne ñetti parti kese ñoo ci bokkoon parti bi njëkk bi mooy LUPS beneen parti bi ci topp mooy PRA sénégalais c'est-à-dire parti du regroupement africain beneen parti bi ci topp mooy PSS parti de la solidarité sénégalaise muy parti jëm ji nii di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bi nga xamante ne résultat yi génn na nag parti bi nga xamante ne moo di UPS lañ wax ne moo gagné am ci lu toll ci 83 pour parti Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum di PSS amon ci lu toll ci 12,1%. Benen parti bi ci top muy PARA am ci lu toll ci 4,9%. mais nak faaw ñu préciser bien sûr que ne système électoral bi nga xamante mom lañ doon utiliser ci atum 1959 ya bokkut ak bi nga xamante mom lañ utiliser tay parce que wax nañ ci élection yoy noonu dañ ci amone ay problème de transparence rax ci doole aussi ñu wax né ay irrégularité yu bari amna ci élection yooyu mais nak yëmul ci lolu aussi ñi nga xamante ne dañoo faroon ci jëm ji li di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Serigne Cheikh ci boppam dénoncé na ay violation yoo xamante def nañ ko ci ay partisans ak ño xamante dañ ci fat seen bakkan ak ay yàqu-yàqu yu bari ak ño xamante dañ ci tal seeni alal batay amna ci ay partisans yo xamante dañ leen a am ci ñeneen ñoo xamante dañ leen japp jàpp yóbbu leen ca kaso ya ci jamono jooju nak ñu bari bari comprendre ñu won lan moy démocratie c'est-à-dire ni nga xamante non la warona mel normalement ci jamono ji bokkul ak ni nga xamante non noonu la meloon ci jamono yi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum quelques semaines après élection législative yi nak frère jëm ju tedd jini di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum muy Serigne Pape malik Sy radiyallahu anhu dafa décidé ne dafay organiser ben manifestation ci tabaski bëccëg suba sa ci dëkk bu sell bi nga xamante ne moo di Tiwaawoon

lu la njëkkoon a organisé ñëw ci jour bi nga xamante ne moo di samedi le 20 juin atum 1959. yemul ci loolu aussi dafa dem ci administration yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bii nii di Tiwaawoon mu laaj leen li nga xamante moo di autorisation ba jox ko ko. mais nag coono yooyu Serigne Pape Malick Sy def yëpp mën naa ne mujjul sax am njariñ parce que administration yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci réewu Sénégal ci jamono yooyu dañoo ragaloon. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dénoncé injustice yi nga xamantene mo amon ci élection bi lool nak mo waral ñu def tout pour manifestation bobu noonu du am ngir ñu empêcher Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu wax njuuj njaaj ak luubal yi nga xamantene def nañ ko ci élection yi ba mom mu muju perte ci moment bobu nak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon adversaire politique bo xamantene ñi fi nekkoon ci administration bi dañ ko ragalon don ko bàyyi xel en même temps aussi ñu jappé ko benn ennemi redoutable leneen li ci gëna yéme nak moy autorité yi nga xamantene ño fi nekkoon ci jamono jojum bàyyiwuñ ba manifestation bi des ñett wala ñaar wala juróomi fan ñu soog di wax Serigne Cheikh ne ko manifestation bi interdit ko mais dañoo bàyyi ba ci jour manifestation bi ñu yebal police ak gendarmerie jox leen digal aussi que ni bépp installation boo xamante ne def nañ ko ci makkaan bi nga xamante ne foofu la ñu décidé woon foofu la ñuy defee manifestation bi ngir ñu dindi ko ba mu set wicc mais nag bu fekkoon yem nañ ci dindi ay bâche wala dindi installation yi nga xamante ne moom lañ fa defoon daanaka mën naa ne dina ñaaw mais dina xaw a tane mais nag bi nga xamante ne Serigne Cheikh Tidiane Sy ñëw na ci makkaan boobu noonu ngir xool situation bi nan la demee commissaire bii nii doon wuyoo ci turu Jibi bi nga ko gisee def ne e Serigne baa ngi ne ci saa si rek ñu joxe ordonné fa dans ce cas là moom li ñu doon laam-laame boobu ba tey preuve baa ngi nii Serigne Cheikh Tidiane Sy nekkutoon ab adversaire politique boo xamante ne daf doon jàmmaarloo ak administration ba fa nekkoon ci wàllu politique mais dañ ko considéré woon comme benn ennemi boo xamante ne benn objectif kese lañ am mooy jël bakkanam heureusement nag pexe yi nga xamante ne moom lañ amoon ngir liquider jëm ju tedd ji nii di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mujj ko am mais nag bu ñu jëlee information yi nga xamante ne journal bii nii di solidarité moo ko génne le 25 juin atum 1959 bokk na ci ñi faat ñaari taalibe Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum am na ku ci doon wuyoo ci turu Youssou Diop ab boulangère la woon am keneen ku doon wuyoo ci turu Souleymane Cissé wax nañ ne kooku noonu ab manœuvre la woon ak 27 personnes yoo xamante ne blessé nañ leen ak juróomi kër yoo xamante ne taal nañ ko bu ñu yemoon ci loolu rek mais Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum aussi ca suba sa cest dimanche le 21 juin atum 1959 dañ ko jàpp placé ko mandat dépôt ñu tek ci jamono yu tuuti majmu Diop mi bokkoon ci PAI fekk ko ci prison ba ci réewu Sénégal ñu tollon ci moment yo xamantene démocratie dafa soxé won rax ci doolu aussi majmu Diop mi nga xamantene jappon nañ ko mu fekk Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum ca prison ba dañ ko mujj forcer génn ko réew mi mu exil dem ci yeneen réew wax nañ aussi ñi nga xamantene ñoo bokkoon ci parti bi nii di PAI ñu ëpp ci ñom dañ leen forcer aussi génn leen réewu Sénégal ñu exilé dem ci yeneen réew bi nga xamantene japp nañ ko nag kilifa diine diine yu bari ñi ngi ko doon jàppale ci combat boobu noonu mën naa cay lim ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Niass anhu ak ki nga xamante ne moo di Major Cissé mais am na ci yeneen kàngam yoo xamante ne aussi ba ko doon jàppale Ibrahima Seydou Ndaw mu nekkoon directeur politique bu partem bii nii di PSS Omar Diop mu nekkoon secrétaire général bi ak juriste bii nii di Amadou Moustapha Wade mais na ci nga xamante ne moom la kilifa diine yi solution bi ñu utiliser moy lan muy fexe ko fexe parti bi ni di PSS ak pouvoir bi nga xamante mo fi nekkoon. mais nak rapprochement bobu noonu secrétaire parti bi muy Omar Diop d'accord ci won même El Hadji Major Cissé aussi wax nañ ne rapprochement bobu noonu àndu ci won danaka lu xawa a jege ñaari weer Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum tëj nañ ko ci bir prison bi bu ñu ci information yi nga xamante mo moo won ci journal solidarité Serigne Cheikh mi ngi ko génne jour le 5 février.

Léopold Sédar Senghor wax bien sûr que ni bi nga xamante nommé nañ Léopold Sédar Senghor mu nekk le premier président de la république du réew mii Sénégal dafa amoon intention ngir liggéey ak jëm ji nga xamante ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ko gën a préciser ci kanam Senghor nak mi ngi bëgg a liggéey ak koo xamante ne mooy adversaire politique mais nak loolu ci kanam lay doon wala sax mën naa poser benen question moy Léopold Sédar Senghor dafa bëggone liggéey ak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wala dafa nekkone ay pexe yo xamantene ne daf koo laloon ngir jot ci jëmmam mais nak ak lu mëna a xew Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nommé nañ ko ambassadeur ci atum 1960 le 13 avril 1961 ñu présenté ko li nga xamantene modi lettre de créance même sax Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax na né njiitu réew Côte d'Ivoire ba won muy Houssouin Boingué xelam dalu doon c'est-à-dire amone na ñaaw njort ci fal bi nga xamantene Senghor fal nako Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum mu nek ambassadeur mais nak lim doon njort danaka deug la parce que jamono ju gàtt lañ ci tek Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum ñu tuumaal ko ne dafa dafa loubal alal te teggu ko ci yoon li ci gëna yéme nak moy andi wuñ benn preuve ne fi wala fi la Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum jëlee nangam ci alalu nguur gi pour ma gëna léral bi nga xamantene Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum nommé nañ ko ambassade Caire dafa constaté won ne Sénégal amul ay local loolu mo waral nak mu décider ngir fay ay charges locatives est-ce que sax c'est normal rew mu mel ni Sénégal amul ay local ci rew mi nga xamantene ne rew Égypte bien sûr plus précisément Caire pour honorer rew mi di Sénégal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum jënd ay locaux yo xamantene ne dañoo ci Garden City mais nak bi koy jënd jënd ko ci xaalisu bopam mais daf ko jënd ci xaalisu Sénégal mu nekk lu gëna normal parce que fi mu nekk nekk fa ambassadeur nekk fa ambassadeur bopam mais ambassadeur rew mi di réewu Sénégal la fa donc bu da fay jënd dara daf ko war jënd ci xaalisu Sénégal Sénégal parce que loolu nekkul moom moo ko mais Sénégal yépp ñoko bok rax ju doli aussi yag ngeen sax diko dégg ay ndongo yu bari dañuy doon joggé ci réew Sénégal di dem ci réew mi nga xamante modi Égypte ci université yi nga xamante ño fa nek par exemple université Al Azhar bi nga xamante mo nek ci réew Égypte plus précisément Caire ñu ci bari lañ fa doon dem di jang mais nak bi nga xamante Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum gis na né ñi ëpp ci ñom dañoo nek ci ay situation yoo xamante yu vulnérable la loolu motax mu décider ngir dimbale leen تصاحت دك دك سرنتي اختيجانتي المقتوم جينيرال ديغول وحنا ندفكو فينانسي ba soxlaatul xaalis ci compte personnel donc loolu non dafa nek ay touma yo xamantene dañ ko teggon ci jëm jini di Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum ngir gàkkal deram ci wattu kilifa diine yi nga xamantene ñom la bàyyi won ci rew mi nga xamantene modi moo Sénégal ñu nekkon fa ci jamono joju Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum nak am popularité bu énorme ci wattu ndongo yi nga xamantene ne ñoo nekk ci université bi nekk ci rew Égypte ñu bëgg ko liko waral nak moy situation bu difficile bi nga xamantene mom lañ doon dund avant Serigne Cheikh di ñëw dafa soppeku gëna neex bi nga xamantene Al Maktoum yegsi popularité bobu nak mëna ne dérangé woon na ñu baree bare bare ci réewu Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon extérieur loolu nak mo waral bi nga xamantene ne nañ seen i ba nopi ci njeextalu atu 1962 ñu woko mais nak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum demul rek bàyyi leen mais daf leen doon contacter encore une fois di leen nemmeeku parce que dafa sentiroon ne seen nekkin dafa menacer wu woon rax ci doolu aussi langue bi nga xamantene modi langue arabe dañ ko bëggone a jël def ko deuxième langue c'est-à-dire mu nekk langue bo xamantene moy mooy inférieur que langue bi nga xamantene modi langue français bu ñu jëlee confirmation yi nga xamantene mo tuké ci livre blanc des enseignants en langue arabe au Sénégal wax nañ ni avant 1972 enseignants nga xamantene ñoo doon jàngale langue arabe soit ñu nekk ci cycle secondaire wala cycle primaire dañoo nekkoon ci situation yoo xamante ne yu déplorable la rax ci aussi ak ak yelleef yi nga xamante mom lañ doon jox yi nga xamante ñoo doon jàngale langue français beaucoup ak ak ak yelleef yi nga xamante mom lañ doon jox ñi doon jàngale langue arabe Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum xamoon bien sûr que ne ci atum 1963 fédération des associations musulmanes du Sénégal xamoon na ne ci pexey état bi ci lañ organisé congrès des unions nationales des étudiants sénégalais en langue arabe wax ne ci congrès boobu noonu ay partisans Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dañoo wuy si carrément rax ci aussi Serigne Cheikh dénoncé injustice bi nga xamantene moo ak gënalante gi nga ko gënalante wax nañ ne événement mi ci septembre 1963 bien sûr mu nekk deuxième fois arrêté nañ ko jëm ji nga xamante ne moo di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum encore une fois ñu gën a préciser ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bi nga xamante ne mi ngi xeex daawul xeex ngir défendre ay intérêt ñi nga xamante ne dañ doon jàng langue arabe kese mais képp koo xamante ne da nga nekk ndongo nekk ci réewu Sénégal daf doon défendre aussi say intérêt bi nga xamante ne jàpp nañ ko ba pare nag dañoo dem di wuti yan lay la ñuy teg ci kawam ne moom moo ko def li ñu wax mooy lan mooy dafa détourner alal te tegu ko ci yoon li ñu ci jublu woon nag mooy yàq deram ci wëtu kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekkoon bien sûr ci réew Sénégal ci jamono jooju mais nag li ci gën a yéeme mooy wax nañ ne jël na ba tey mënuñ la ne fii la sàcc wala lii la jël wala lii la jël raf ci loolu aussi taxawaluñ ko benn yoon atte ko ba confirmer ne moom moo jël lii ba tey buñ jëlee ci seede yi nga xamante ne Christian Coulon moo ko def wax na ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum arrêté wuñ ko parce que dafa jël alal te jaarale ko ci yoon mais dañ koo arrêté parce que dañoo ragaloon ab révolution jóge ci moom rax ci doolu aussi daf doon fréquenté lu bari ambassade égyptien bi wax na ne lii moo waral ñu tuumaal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum jàpp ko dugal ko ci prison bi mais nag amul benn dërëm boo xamante jël na ko te jaarale wu ko ci yoon bi nga xamante ne jàpp nañ ko nag tuumaal ko ci loo xamante ne teguñu ko fenn dañoo bàyyi ba ci weeru avril ci atum 1964 ñu soog ko libéré Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa nekk koo xamante ne daf doon ñaq daan dooleem c'est-à-dire boo xamante dafa basé woon ci ay addiya ngir di mën di ay projet am déedéet mais daf daan ñaq daan ko def comme ni ko maamam doon ne moo di Abdoul Hamid wax nañ ne bi nga xamante ne mi ngi gën a nekk ndaw ñu commencé di ko influencer que ne kilifa diine nga da ngay toog xaar ñu jox la addiya nijaayam bi nga xamante ne moo di El Hadji Ousmane ci ndigalu papam bii nii di Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ci la décidé ngir wutal ko métier. wax nañ ne nekk na baykat nekk na commerçant nekk na aussi homme d'affaires en même temps aussi nekk na actionnaire ak yeneen i liggéey yu wute wax nañ ne jëm ji nga xamante ne moo di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum koo def ci dundam. bi nga xamantene nak Abdou Diouf jël na nguur gi nek président de la république ci réewu Sénégal avant muy nek président c'est-à-dire bi nga xamantene Abdou Diouf nekkoon na premier ministre wax nañ ne dafa amone ay rapport yo xamantene rapport yu ratax la ci digganteem ak jëm ji nga xamantene ne moo Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax nañ aussi nak bu fekkee aussi dafa amone ay jafe-jafe ci nguur gi ci digganteem ak Léopold Sédar Senghor lég lég daf doon dem ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waxtaan ak mom ngir mu dox ko ay solution wax nañ sax ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mi ngi ko doon soutenir ci élection yi nga xamantene mo amone ci atum 1983 ak 1988 donte ne aussi am nañu wax ne amoon na ay ñàkk déggoo ci ci rax ci aussi ñàkk déggoo yooyu dafa continuer après élection yi nga xamante ne moo ci atum 1988 lolu mo waral Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum décidé ne dafay retiré wu touti batay aussi mën naa il n'était pas seul dans le combat parce que suñu borom joxoon nako ben cadeau muy le responsable de Sidine wala Moustaphidaat Serigne Moustapha Sy mu commencé di nek mak mu commencé aussi di ragné rax ci doole aussi position yi nga mom la woy jurum wi di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum amone Serigne Moustapha commencé di occuper position yoy non dans ce cas là nak jotna ngir mu delo lengay yi wala bok mu jébbal lengay yi ki nga xamantene modi Serigne Moustapha Sy borom Moustaphidiin wala Moustaphidaat wala bok le responsable moral du daayira Moustaphidiin wala Moustaphidaat li moy li nga xamantene mom la len andi don ci jaar-jaaru en général jëm ji nga xamantene modi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yag ngeen nak di ma poser question histoire du Serigne Cheikh. mais dafa nekk koo xamante ne géej la te mën naa ne épisode bu xew ci Sénégal rek mën nañoo génne exemple jëm yu ci mel ni Serigne Cheikh Tidiane Sy bu fekkee da nga ma doon seetaan te mosoo abonné maa ngi lay invité bien sûr ci canal bi bu fekkee aussi yàgg nga di ma seetaan maa ngi feddali sama cofeel jëmale ko ci yow di la fàttali aussi Naby Boutique bu fekkee danga soxla ay diw yu baax dama leen di wax ne ay diwu aloe vera yu baax lay yore ay produits aloe vera baax nag kon mën nga ko contacter léegi-léegi avec Naby Boutique yéen ñi doon la gamme de haute qualité ay produits de classe ay produits de marque ay produits de dernière génération yéen ñi doon wër produit aloe vera yu baax yi disponible na ci nabi Boutique bépp façon crème de aloe vera moo xam mine master liquide extrême wala sax vita active Bayoul dara yéen ñiy jàmbat problème ndigg wala yax yuy ruux wala sax léeg sa di contactel Nabi Boutique même su fekkee da nga bëgg perte poids jarul ngay régime contactel Nabi Boutique mu jox la ci aloe vera yu da nga bëgg am contactel Nabi Boutique numéro de téléphone 0039 375 735 34 51 ma Touko 0039 375 735 34 51 Moham Yagi Europe wala yaa Sénégal, Sénégal bul hésitez contactel Nabi Boutique avec Nabi Boutique aajo y faire faju ak gamme produit yu